Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi di rafetlu seen teewaay ànd ak programme de Salam Vision di ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp si weeru koor bi nga xam nag ñu ngi koy commencé ñu ngi koy tàmbale si bisimilahi rahmaani rahim tëj ko si alhamdulilahi rabbil alamin sant suñu borom mooy xam ni yàlla benn moom la ñu yaakaar yaakaar seen bu tedd sangu sang yi euh, di ñaan jullit yëpp ñaan koorum 2021 nekk koorum jàmm koorum naataange waxoon naa ko démb di koorum euh, wér koorum xewal ñaanal ko Sénégal yëpp adduna bi yëpp euh, fii Salam Vision euh, jàngatu tay bi nag ñu ngi ko jëmale si justice ak société yoon ak askan bi nekk la jàngat boo xam ni yàgg nañ ko xalaat askan bi ak justice naka la ñu mën a lëkkaloo te naka la ñu mën euh, euh, di waxtaan tey boo xoolee tey justice sénégalaise bala may tàmbali dañuy rendre hommage benn juge bu xarañ bu fi jógee di le magistrat Samba Sall Samba Sall nekkoon un juge d'instruction xelam màccoon si mbirum yoon yàlla jële ko fi euh, nekkoon juge bu am maanaam juge bu xam liggéeyam dinaanu Omar tamit balaa ma ñu si jàngat bi ñu fi nekkoon ay juge yu am solo Sénégal ku mel ni l'ancien président de la cour suprême du Kéba Mbaye par toute la communauté internationale Kéba Mbaye macha allah nekkoon ku nekkoon fi juge bu am solo Sénégal di fàttaliku l'ancien procureur de la République Ousmane Goudiam l'ancien magistrat Abdoulaye Matel Diop ak ñoom Assane Bassirou Diouf ay magistrat yu xarañ xam ni yàlla jël leen ay ati ati nii man justice sénégalaise mooy justice référence fii en Afrique atum indépendance 1960 ba léegi Sénégal yàgg na am ay juge muy fii muy partout sur le plan international Sénégal yi tey Nations Unies te nga dem tey si bànqaas yu gën a mag si monde bi mbokk suñu mbokk sénégalais yi ñoo fa nekk euh, di àtte doom aadama yi boo xoolee tey la CPI ma jël exemple ku mel ni maître Sidiki Kaba nekk actuel ministre des forces armées mu nekkoon la président de la CPI ak jamono mooy président d'honneur fépp ko dem sénégalais yi ñu ngi partout sur le plan international di àtte mbir mu yoon euh, jëm bu ba bële droit international te ñëw fii si Sénégal. ma ni mooy li mbirum yoon war na lëkkale askan bi ba ñu am ay gàllankoor tey bu fekkee ne dañu war a tey atte nit ki euh, jébal dossier bi magistrat bi magistrat boobu moo koy saytu ba mu set wecc euh, delloo ko procureur la république procureur de la république joxaat ko le juge d'instruction kooku saytuwaat ko balaa ñuy euh, jël dogal nëbal nit ki nu mu sin ba ñu sàkkal ko pexe ma ni euh, magistrat yi am nañu ay magistrat yu xarañ ba si biir corps magistral bi euh, yaa UFS di ñoo magistrat bi du Sénégal war na nañu gën a seen kuréel boobu ñu toog di waxtaan ñoom sax ñu koy def di organiser ay prom ay atelier de sensibilisation jëmale ko si diggante magistrat yi nga ñoom ñoom naan kuréel boobu am na aussi benn kuréel bu ñuy wax l'ordre national des avocats mooy bànqaas boo kuréel boo xam ni avocats yi ku si jalgati euh, euh, kuréel boobu moo leen ay daan ba mu summi sorbu avocat ba yi am na euh, ñaar ñaar ñooñu diggante magistrat avocat dafa wute magistrat bi mooy tëj mais du bi mooy tëj avocat bi moom mooy xam ni taxaw di défendre client mais magistrat bi moom moom droit tëj magistrat boobu tey dañ ko war a delloo gëddëm man moom moo wax nag ñëpp ñëpp a am na magistrat yu baax am na magistrat yoo xam ni euh, ñoom jaar ñu yoon seen liggéey mais damay gën a delluwaat Sénégal yi rek magistrat dafa ne corps bu sensible corps d' administration la ñoom énorme liggéey commission d' administration di nga jàng droit ba mokk ca ñëw nga nekk magistrat boo xam ni da ngay servir sa nation mais pas servir euh, politicien pas servir président de la République pas servir homme politique mais askan bi moo la fi teg nga mën a atte euh, dans de très bonnes conditions ma ne di wax aussi mbokku avocat yi euh, bu ñuy plaider aussi na jaar yoon avocat métier bu noble la métier bu euh, passionnant c'est comme tey jii le journalisme tey jii le médecin ku nekk sa métier la mais nga ànd ak dëggu nga ànd ak pastef nga ànd ak xarañ loolu mooy euh, bonne gouvernance judiciaire loolu bonne gouvernance administrative euh, moo taxoon tey jàng tey bi dañ koy jëmale euh, suñu mbokk ay yi te jàng bi tey dañ koy jëmale aussi si mbirum prison yi tey am na doomu adama yoo xam ni tey ñu si kaso yi ñi fukki at ñi euh, fukk ak juróomi at bëri kenn attewu leen loolu dafa war a dàkk en dans la loi judiciaire di waat le ministre de la justice garde des sceaux maître Malick Sall di woo le président Sall mu xoolaat bu baax euh, justice bi ñi nga xam ni ngi prison euh, amuñu moyen dañ leen war a atti amuñu avocat mën nañ leen bu fekkee ne mën nañ leen jégal ñu jégal leen fekk mën leen jégal ñu mën leen atti bu mu a gaawee loolu mooy yoon ba euh, partout la CPI gis ngeen le procès Laurent Gbagbo atte euh, nañ ko léegi setal nañu gërëm yeneen président yoo xam tey teg nañ leen loxo fële ca à la CPI euh, ñii bari leen ñii bëri leen ñii au niveau de la CPI euh, gis ngeen yéen am na la cour africaine des droits de am na la cour européenne des droits de l'homme bi ay banques yoo xam ne ci Afrique day seeti mbirum droits de l'homme fële Europe day seeti mbirum droits de l'homme en Europe. ak ah, gis ngeen fii Amnesty International mooy bànqaas bu mag boo xam ne dafay tuumal yenn état yi jalgati ba ci euh, yeneen kuréel lu mel ni la rajo lu mel ni Ligue sénégalaise des droits humains yeneen bànqaas ñëpp ñu ngi xeex pour ak ak wéreef doomu aadama loolu dafa am solo si réew euh, di ñaaxat justice man du ma ŋàññi magistrat du ma ŋàññi avocat senegal nee naa référence en matière justice am nañu justice bu mucc ayib euh, di woo aussi le conseil supérieur de bi nga xam ni euh, juróom benn magistrat yi ñoo ko jiite euh, ñu bañ a déglu nit ñi def seen liggéey di dawale yoon te di jaar yoon Sénégal yi ñu ngi déglu guddeeg bëccëg bëgguma aussi kenn ñaan yàlla ñuy euh, joxal ay tuumal di ay ay magistrat yàq wax naa ko ñoom Kéba Mbaye ñi fi jaar avant Kéba Mbaye ma ne Sénégal royukaay la en matière de justice et du international di fàttali ko askan bi Sénégal fépp problème sur le monde euh, nous sommes sollicités ñu ngi ñu reconnaître partout à travers l'international mesdames et messieurs euh, notre réflexion d'aujourd'hui porte euh, sur la justice entre les magistrats et les avocats euh, le rôle du magistrat est euh, le magistrat est un métier passionnant un métier euh, de haute portée un métier qui est là pour réglementer et, nous disons, euh, donner des informations objectives en matière de justice. Le magistrat et l'avocat, c'est deux corps différents. C'est le magistrat qui le droit à fermer l'individu en prison, mais ce pas l'avocat. L'avocat est là pour défendre son client, est là pour plaider. C'est au magistrat de prendre ses responsabilités, de fermer, euh, que ce soit le bonheur, que ce soit euh, euh, la personne qui a été, disons, pointée du doigt accusateur. Nous lançons un appel à nos frères de justice de renforcer cette cohésion, cette unité, cette solidarité judiciaire. Le Sénégal a eu des hommes de droit honnêtes, objectifs, qui n'ont mélangé aucun effort à nous imposer une justice cohérente, coercitive et indépendante. C'est pas aujourd'hui. Je prends le cas de Kebabé, qui a été euh, président la Cour qui, a, qui avait toujours joué un rôle important pour le renforcement et la stabilité judiciaire. Il y a eu de hauts magistrats qualifiés, professionnels. Je parle euh, d'Ousmane qui a été procureur de la République, Abdoulaye Mataré Diop, Léa Et tous ces avocats ont eu à nous léguer des histoires indélébiles sur le plan judiciaire. Chers Sénégalais, notre magistrature ne dépend d'aucun pays. Aucun pays dans ce monde ne nous a jamais donné de, droit et de démocratie judiciaire. Hélas, partout dans les instances internationales, aux Nations Unies, euh, partout à travers le monde, le Sénégal a des juristes qualifiés, le Sénégal a des juristes indépendants. Mais à cet effet, nous lançons un appel au président de la République qui est le garant euh, de l'aide, qui est le garant de la justice. Euh, le président de la République doit revoir également euh, le rôle et le statut des magistrats et des avocats. Les magistrats ont une structure de l'Union des magistrats du Sénégal. nous lançons un appel solennel à l'Union des magistrats du Sénégal devait et respecter scrupuleusement l'indépendance de la justice, l'indépendance également de ses magistrats. y a l'ordre national des avocats. C'est une structure qui est là pour veiller également euh, au, travail des avocats. Et ces avocats doivent relever l'effort pour éviter ce qu'on appelle des soubresauts et des incohérences au niveau de leur métier. euh, c'est la raison pour laquelle euh, cette réflexion d'aujourd'hui est axée euh, entre la justice et, nous disons, euh, les citoyens. Euh, nous lançons également un appel euh, au ministère de la Justice, Maître Marissal, de revoir la situation qui perdure dans les prisons. Des prisonniers qui croupissent 15 ans, 20 ans sans être jugés, c'est inhumain c'est inadmissible dans un pays soi-disant démocratique. Monsieur Marissal, la balle est dans votre camp. Hélas, il est temps de désengorger nos prisons. Il est temps également de dire qu'est-ce qui ne va pas dans ces prisons. La balle est dans le camp du ministre la Justice Marissal et des magistrats. Nous lançons un appel de respecter l'indépendance de la justice et aux magistrats. sénégalais et sénégalaises euh, patient patientons patienter euh, ay patienter une justice au service du développement et une justice au service du progrès de la nation tey mbokk yi wala tey jàngatu bi démala ko si mbirum yoon ak euh, askan bi leen gërëm leen sant di ñaan yàlla koorum jàmm koorum nattànge jërë ngeen jëf beneen jamono incha